الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم mbokk yi ñu ngi sant sunu boroom subhanahu wa taala noo ngi koy bàkk di ko kañ di ko màggal ci màggaayam di ko kaweel ci kawewaayam di ko sori lépp sikk ak i ayib ak i manqué manqué di seere ni mooy buurab dëgg bi nga xam ne moom rek lañu war a jaamu jaamu ko indi njariñ akuk texe ñàkk koo jaamu di indi ay lor akuk alku di ñaan borom bi mboole ñu defal tawfiq boole ñu ci ñi koy gëm dellusiwaat nañ ci sunu xutba joojee weesu woon nga xam ne ñu ngi ko defoon ci ak laytaay ci am njàng ak i seetantal yoo xam ni moo nekk ci saaru màgg wi di suurtu Yuusuf tey mooy ñaareelu xutba ji bu nu fàttalikoo ci xutba ji weesu tuddoon nañ ay yëf yëfaan yoo xam ni daf doon laytaay ci saxaaba ya doon laytaay ci saar wi doon dëfal ci yonent bi doon ak dëfal tamit ca saxaaba ya gisoon ngeen yëf yi nga xam ni moo taxoon ñu tànn xutba ju mel nii def ko it ci waxtu wu mel nii te bokk na ca tomb ba ca gënoon a ñor mooy seetlu ngeen ci jamono yi ñu toll nit ñi lu jëm ci mbirum ay film ak yu demeen daf leen yitteel lool ku seetlu ci télévision yi nga xamante ni mooy daw ci réew mi am na ci télé boo xam ne mi ngi doon teg nettali bi Yuusuf wax dëgg yàlla boo seetloo ba ca biir duñ wax ni la doon nekk ci film bi lépp dara baaxu ca déedéet waaye dañuy wax ni ab julit moom du film ca lay jàngee diineem defe naa am faydaam war naa romb foofu ñaareel bi mooy ñay jàngale film la chaque ni ñëpp bu ñu dul ay julit it am na ñu ci dul ñu dul ay julit defe naa xëyadik julit warta àgg ci bàyyi ko dul ab julit di ko jàngal beneen ba ci des mooy daf ci am ay yëf yëfaan yoo xam dafa juuyoog sharia lu mel ni nataal am malaaka nan kii mooy jibril kii mooy mooy nangam kee mooy xadir kii mooy nangam yooyu yëpp dafa xaaraam ci lislaam amut benn werante ca loola ak yeneen ak yeneen yoo xam ni ma nga ca biir yoo xam ni ak jooyanteek jubbantiwaat jot na rawatina ci jamono ji nga xam ne nit ñi ay film ak i théâtre daf leen yittee lool waaye lislaam moom kenn du ko jàngee foofu mu ndax kon jaaduwut na lislaam doon jàngalee am jàngaleem ca jamono ju yàgg ja nga xam ne yonent bi salallahu alayhi wa sallam daf daan taxaw ci kaw minbar leeral la nga xam ni moom la yàlla wàcc ca moom nga xam ni moo doonoon jàngukaay bu mag bi nga xam ni ku ci amoon benn yoon par semaine rek daf doy na la sëkk bal sax nag ñu bari ci ñoom loolu lañ doon yem ndax boromi tool lañ woon ak boromi jur di sàmm tey nag ñu fas yéene xool li ne ci saar wi ci am njàng waxoon naa leen bind bii weesu ni ñëwuñu ngir tafsir saar wi ndax loola moom leneen la am nañ bind fi jàkka ji bind bu koy def waaye def ay taxaw seetlu akum njàng moo xam ne jàpp naa ni ku suñu borom defal tawfiix ak seetantal di nga gis ni ndekete jullit kat léppam même aw doxalin dundin dundinam sax mën na koo jàngee ci biir téere yàlla bu tedd bi di alquran borom baa ngi tàmbalee saar wi nii aliflam ra yàlla mu ne ah téere bii di alquran day lii ñu lay joxañ de di ko waaj a wax mooy téere yàlla bu tedd bi di alquran di téere bu leer bi ñun yàlla dañoo wàcce alquran ji mu nekk làkku arab di làkk wu set ngir bu ngeen ko jàngee mën a comprendre li ci nekk ngir mën a xellu nun yàlla nag noo leen fas yéenee nettali ab nettali boo xam ni moo dàq ci nettali yiñ mas a nettali xoolal borom bi daf ko tuddee ahsanal qasas ahsanal qasas mooy nettali boo xam ni kat daanaka moo dàq ca muy jëfandikoo li arab di wax afala tafdil li gën a rafet te gën a baax te gën a sell ci ay nettali mooy nettali saar wi nga xam ni bokk na ci yi nga xam ne dañ la ko wax yu donte lu jiitu woon yow yonent bi xamoo ci woon lii dara saar wi day tàmbali na di nettali nettali bi yusuf alayhi moo taxit njàng ma ci nekk ci biir it daal di tàmbali su ko defee mu nekk ak laytaay ci bopp saar wi wane ni kat nettali bii ñu bëgg a nettali kat comme borom bi moo ko jox yitte ju doy ni ah ahsanal qasas nettali bi de ci nettali yi dàq ci nettali la bokk ah sunu borom subhanahu wa wane ko ci waxin wi wane ko ci nettali bi waaye wane ko tamit ci njàng bi nekk ci biir saar wi bu dee ci wàllu nosewug aaya yi da cay feeñ su dee ci wàllu nosewug nettali bi da cay feeñ su fekkee nag ci wàllu tarbiya nag yar yarkat yëpp dañ cee mën a jàng ndax xam ngeen ni mbokk yi jullit ñi tey wala góor yi daanaka kenn ku ci nekk say umniyaat muy say li ngay rêve bokk na ci mooy am soxna amaat soxna amaat ay soxna ci sa biir kër am ay njaboot dëgg la lu baax a ngoog su du wonoon lu baax yonent yàlla yi duñ ko def lu am solo ngoog am njàngale mu rëy nga ca waaye nag ay danger ma nga ca yoo xamante ni borom bopp bu tuut du ko gàddu su boobaa nag la nga xam ni moo ne ci biir saar wi ca la xewoon ca biir kër yonente bu tedd di yaqub alayhi salaam loolu soo ko xalaatee di nga xam ne ah ndekete boole ay soxna ci biir kër day te it sa xol du mën a yem te ñoom ñëpp ndax noonu la yàlla bindee nit boole ay doom ci biir kër ti sa xol du mën a yem ci ñëpp donte am na yemale gu sant loola jàpp naa ni ku koy def war nga koo waaj waaye toppandoo waru la cee dugal waaye déggum riir rek waru cee dugal soo dikkee ci wàllu jikko it da ngay fekk saar wi wala njàngale mi dal di cay nekk ca njombox tol ndax gis ngeen jikko ju safaanu ju sibu ju bon ji nga xam ni bokk yuusuf ya moom lañ def yuusuf ak gis ngeen keroog ba mu jekkoo nekk buur jikko ju rafet ji mu leen wan mooy laa tasriba aleykumul yawm man tey topp ma leen dara baal naa ni ñëpp jéggal leen seen borom ñaareel bi ñi nga xam ni ñoo doon weddi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci yéefar ya bu ñu déggee saar bi kat danañ jommi la leen di jommal mooy yonent bi fi la juddoo loolu moom wóor nañu mosut génn jàngi fenn amul kenn ku mën a taxaw ci dëkk bi du arab du juif du chrétien ku mën a taxaw ne yonent bi man mas naa koo jàngal liif laam kon fan la mën a fëllee rek xëy di ñu nettali ay xabaar yu wér wóor yoo xam ni historien yu yàgg ya bi ñu yegg see ñoom mënuñu koo weddi loola kat la muy wane mooy kon kii kat ndeke li muy wax waxu ko waaye dañ ko ko wax loo loolu la yàlla wax ne wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wala taxutuhu bi yaminik idan lartaaba yow kat yonent bi amul benn téere boo xam ne jiitu woon nga balaa alquran nga jàng ko déedéet amul lenn loo xam ne sa loxo bi mës na koo bind mënoo sax bind faf su loolu amoon kon diingatkat yi danañ gën a am lu wax waaye li am kay mooy bal huwa ayatun bayinat fi suduri alladina utul ilm alquran ji aaya yu leer la yoo xam ne yàlla moo ko jël sottandiku ci dund borom xam-xam yi ah loolu mooy li am sunu borom mu ni fàttalikul keroog ba yuusufa tëddee ba guddi mu gént ab gént wax baayam ni ko ah man de biig damaa gént gént gu gu jaaxlewu lool dama gént fukki biddéew ak benn ànd ak jant bi ak weer wi ñoom ñëpp fàqee ca kaw rek ñëw di ma sujuutal bàyyi ñu ni ko nga di mu ne ko loolu de laa gént bàyyi ji ni ko tëjal sa gémmiñ gi lii de bu ma déggaat nga wax ko noppi lii bu ko nettaliwaat rawatina nag ñi nga bokkal baay rawatina ñi nga bokkal baay moo ne mbokk yi de ku yaakaar ni farfarloo dafa am ci njurum doom jàpp naa ni yonent bu seelee ni yàqub kenn du ko sikkalee loolu moom wax dëgg yàlla même bu ñuy sikkal keneen moom yàqub mucc na ca loolu li muy wane mooy ndeke ki jur moom moo gën a xam ay doomam bu fekkee nekkut ko sa ndekete yoo nit dana bokk ak nit ba noppi añaanee ko kon magam ka nga xam ne bokkut ak yow da ngeen bokk dëkk rek mbaa ngeen bokk xamante mbaa yu demee noonu te sa gémmiñ gi lii de bu ko waxaat mu jëm kaw rawatina ñi nga xam ne ñoom nga bokkal baay lii de boo ko nettalee ñoom de danañ la fexeel ay pexe ah waaye lam ca teg ndax seytaane daa bari doole kon ndekete seytaane daa bari doole moo lay wan ni bon bon taxu leen woon a pexe bon taxu leen war a def lan def waaye seytaane ci boppam mooy koo xam ne du ba doomu aadama lu dul def koo def loolu bon kon ñoom bëgg def lu bon taxu leen war a jug nara bon it taxu leen war a jug yonent yàlla yàqu it jurut ñu bon waaye nag lam ca lam wax ni say mbokk dañ lay fexeel ba pare waxul ni ñoom kat ab noon lañ ci yow waaye seytaane noonu la ci doomu aadama loolu moo lay wax ni kon seytaane moo leen jañax ba def la leen jëf ja waaye du ñu seen bëgg loolu nga gént mu ni waaw mu ne ah kon de yëgal ni yàlla bis ni ki tey tànn na la nga nar a nekk bu yonent yaa ma nar a wuutu muy lu rëy ci nopp Yuusuf gone gu xonq cuy goo xam ni fukki atam sax matagut matalagul fukki at jamono jooju mu ne ko yëgal ni bis ni ki yàlla tànn na la yaa nar a nekk ab yonent sama gannaaw yàlla xamal na la dina la xamal firim gént firim gént moom saw tund yaa ci man yemul ca loola waaye xéewal gi yàlla defaloon sa maam ya tàmbalee ci sa baay yaqub ak baayam ishaq ak baayam ibrahim yooye xéewal suñu borom jox na la ko ndax sunu borom kat yégal ni moom ku xam la ku xereñ la allahu akbar baayam mi ngi koy dénk nettali bi gént gi bu mu ko nettali ay jege ñaaleem yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee su jullit tëddee ba guddi mu gént lu bon nee na loolu boo yeewoo bu ko nettali da ngay taf li sa càmmoñ ñetti yoon ñetti yoon nga musulu ci seytaane ñaan yàlla mu musal la ci musiba ji nga génn ci jeex na xëyal dem jërul sarxe jërul xëpp ndox doog a génn jërul di ko nettali kenn taflil dafa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy sab yonent taflil sa wetu càmmoñ ñetti yoon yeewul julli ñaar rakk muslul yàlla jugal dem sa yoon bul ca tegaat bu dara bu ko ca def ndax loolu la yonent bi wax la sallallahu alayhi wa su dee gént gu baax nag ay xadis da cee benn bi yonent bi sallallahu alayhi la sallam dañuy gént mu ngi nekk ci tànku picc mu kepp buñ koy firi rek muy wadd moo tax ëpp naa dem ci tele wala ci média yi fekk benn waay boo xam ni ku ñu xam la ah da lay ni kii moom dafa amul sa xam-xam bay xam firim gént am na ci seen rajo yi benn waay boo xamante ni xam ngeen ko xam naa ko ku ñu xam la am na benn mbokk moo xam ni ñoom ñaar ñoo bokkoon benn dëkk bu doon jàngalee kon xam na ko baax moom dafa amul sax xam bay bay bay xam firim gént nga ne ko gént naa nangam nangam mu firil la ko musiba ñëw na ndax bu fekkee lam firi firi ma demee wut noona rek yëgal ni piccakee por wadd na beneen bi yonent bi nee na sallallahu alayhi wasallam boo géntee lu baax bul ko nettali lu dul sab soppe maanaam du ku ne rek nga koy gént naa nangam muy lu baax du ku ne koy nettali tànnal ñi ngi koy nettali ndax léeg-léeg fajuk aajo yi yonent bi ne ci dimbali koo nëbbu ndax soxla su jóg rek aji añaan mi ngi taxaw loolu nañ koy bàyyi xel bët day dal làmmeñ day dal cat day dal waaye añaan tamit dafay dal ndax wa min charri xaasidin ida xasad li tax saa booy jàng quran di ko jàng moo lay wan nit mën naa yàqule fekk liggéeyuñ ko bët jàpp ko cat jàpp ko kenn defu ko lu bon waaye añaan benn waaye moo ko añaanee añaan gi rek mel ni posan rek daal di yàq la nga xam moom la yore ci ay xéewal kon mu ni ko bul nettali sa gént gi ndax say doomi bàyyi kat li ma seetlu dëgg-dëgg yéen a bokk benn baay waaye bokk leen ay bindin waaye nag yëgal ni yow kat yàlla dana la def ab yonent dana la def borom xam-xam yow yaay alkarimu ibnul karimi ibnul karimi ibnul karim alkarim mooy ku tedd ki ibnul karimi doomu yaqub ibnul karimi doomu ishaq ibnul karim doomu ibrahim yonent doomu yonent sëtëb yonent sa tërñi bi yonent xam ngeen kii lim dajale rëy lool ci ay ci ay maqaama yu kawe kon defe naa bajantu ak jaay nit ñi diis diis mag ak yu demee noonu jàpp naa ne kii la gënoon a war waaye ñiy jàngale ci wàllu yar xool leen ki nga xam ne yonent doomi yonent sa tab yonent sa tërñib yonent nattu yii ko dal kon keneen ku melut nii bu la nattu dalee yëgal ni yay na mu dal ci sa kaw xoolal kii ak martaba yi mu yore te ndomba tànk yi wane wu ko fenn du ca nguur ga du ca kaso ba du ca biir pale ba loolu moo lay wan doomu aadama lu ko yàlla jox ci ay xéewal na ko sante suñu boroom te noppi yonent boobu mu ni ko di nga donn li nga xamante ni moom moo wàccoon ci say baay ak say maam muy ibrahima ak isxaaq ak yaquub ak ndax yàlla subhana ne woon na ibrahim wa jaalna dhurriyatahum albaqin ah uh, nuux ak njabootam te ibrahima ca la bokk nuux ak ibrahim ñoom ñaari yàlla mu ni ñoom laa def seen euh, nu mu tuddati ak yonent nekk seen ginnaaw wa naa fi durriyatihim an nubuwata wal kitab ci seeni njaboot ñoom ñaar ñii ci laa génn yonent yi ci laay wàcc tamit ay téere yi muy wàcc kon loolu mbokk yi moo lay wan ni nit mën ngaa bokk ak nit ba noppi te du ngeen bokki jub loolu nag tekkiwut nit ki boo bokkee ak nit da nga koy commencé di ko sipsone déedéet waxuñu loolu de wala nga bokk ak ni kon kii daf lay añaane li nga am ci xéewal déedéet waxuñu loolu de dañuy wax ni léeg-léeg dinay faral di am nit mën naa añaanee nit te fekk sax ñu bokk ndey ak baay léeg-léeg sax ñu bokk benn baay léeg-léeg ñu jege yoo bokk deret ña ci des moom nga xam ne bokkuñu deret defe naa ñi bokkante deret bokk genn géño su dee ñooy defante yëf yu mel nii ci léeg-léeg jàpp naa ni kon ah wax dëgg yàlla ñeneen taxut di wax moo ne borom bi de mënoon naa bàyyi def ju mel nii am ci beneen famille bu dul kër yàqu Yaquba loolu yàlla ku ko man la ngir sellal njabootug Yaqub waaye yàlla faw mu def ko ci biir famille ngir nattu ko ngir seetlu leen waaye ngir mu nekk am njàng ci ñi ci des ñépp comme ni mu doon wàccee ay nattu ci kër yonent bi ngir jàngal ñeneen ndax jàpp naa ne bu ñu nee ab yonent moo am nattu bii kat keneen ko dul moom war ngaa préparé sol saw daal di xaar sa wàll borom bi mu ne laqad kaana fi yusufa wa ixwatihi ayatun lissaa'ilin ah mu ndax yéen xam ngeen ni yusuf ak ay mbokkam day ay kéemtaani yàlla feeñoon na ca ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo bëgg a xam nu histoire ba demee woon ah mbokk yi jàpp na ne ku bëgg xam nu histoire ba demee woon du ab historien mooy taxaw nettali la ko rek mu jeex wala ab télévision mooy dawal ab film rek nga daal di koy déedéet jullit du jàngee noonu ayatun lissailin ay kéemtaan ñeel ñii laaj ñii laaj ñun lañ kii tontu mooy suñu borom kon alquran ci boppam lépp lu nu soxla rek ma nga ca kon bu ñu bëggee xam foofa la ñuy xamee ji waaye du caage ni ca yeneen yooyu nga xamante ni mooy yi xew ci jamono ci image yi demee noonu ca la ñuy jàngee lan moo tax borom bi subhanahu wa taala ni aayaat bokk na ca mooy añaanee nañ ko soxoree nañ ko li ko yàlla dénk ci xam-xam ak taar ak màgg ñaari yëf a ngi nii gis nga yusuf alayhi salaatu wasalaam bi mu nekkee gone daawud wax waxi gone waxi mag la doon wax léeg-léeg mu am ci gone yi gone goo xam doo dégg mukk mu wax waxi gone loolu day yarkat dañuy xam ne lii alaamatu najaaba léeg-léeg ab yarkat sooy yar ba mu yàgg nga seet lu gone goo xam du def yëfi gone du def yëf ma waxi teel a la def attention ci moom di ko bàyyi xel loolu la ñuy tuddee alaamatul najaaba mandarga yu lay wan ni kii mën naa nekk lëf ëllëg loolu yarkat bu ne war na koy bàyyi xel léeg-léeg nga am benn gone goo xam ni da ngay seet wax waxi gone du yëf jëfi gone léeg nga laaj loo xam ni xale dañ koy tëlee tontu sax moom mu tontu ko kooku sa ihtimaam ko ci moom da nga xam ni kii mën naa nekk lëf ëllëg daawul wax wax gone daawul def jëfi gone te it yàlla da ko mayoon ci taar bu taxawee nii ay mbokkam fereeram taxaw danga nga naan bokkut ak ñoom xam ngeen ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam melal wi mu ko jox ci ci taar kéemtaanu yàlla la yusuf moom maanaam miis jongama jigéen miis jongama jigéen ci seen jamono ci boppam yuusufaa ko dàq maanaam buñ wóoree xam nga jigéen moo ëpp lu muy am taar ka góor waaye bu ñu tànnoon jigéen ñi ba ñu kii mooy miis bi moo dàq ci dëkk bi kooku bu taxawee yuusuf moo koy dàq kon jàpp naa ni loolu lu rëy rëy rëy la ci xeeti taar boo ko xoolee xool ay frère am da nga naan kii bokkut ak ñoom ah ñu commencé koo añaanee taar ba léeg-léeg Yuusuf commencé di wax waxi mag ñu commencé ko añaan loola rawatina nag bu ngeen bokkut yaay foofa nag fa la coow la nekk moo tax ma wax la sànq ni tabax kër yore ay soxna da lu baax la lu sharia di soññee la te lu ñuy wax jullit ñi def leen ko bu ngeen ko mënee waaye nag waaj leen ko bu ngeen ko dee def tey jii li nuy dund nga xam ne làmb daj la nekkul nettali dégg waaye làmb daj lay doon kër yu bari tey boo ci duggee tàmbalee ko na ci kër yonente bi sallallahu alayhi laay wax soxna yaag soxna yi bokk benn borom kër ak doom yi bokk benn baay te benn yaay ay ñol-ñol day faral di am ci seen biir bokk na ca la koy waral léeg-léeg soxna yi bu ñu géndee koo ni kat yow am na foo teg soxna sàngam loola daf leen di metti loolu nag mënta ñàkk de loolu mënul ñàkk de yàlla nee na subhaanahu wa taala yàlla ci boppam borom màggaay gi nee na walan tastatiu an taadilu bayna nisaai walaw xarastum mënu leen a muus ak a muccet ba maandu ci seen soxna yi yemal leen kiif kiif ñu tolloo même bu ngeen ko bëggee mënta nekk daa eh, mënta nekk mu ne waaw waaw léegi nag nu ñuy def mu ne fala tamilu kullal mayl bul jéng-jéng gu fës nga xam ne ku xool gis ku déglu dégg loolu moom dafa bon yonent bi taxaw fële moom naan ku yàlla dénk loo benn soxna nga jéng jëm ca kenn alaxira yàlla dafay pantal dafay paralyser sa genn wet gi muy direeku nga tàbbeek moom jahannam a ah, boo taxawee ci diggante ngay am ak jaaxle ibni kasir boo demee ca tafsiram ba muy tafsir aaya jee walan tastatiyaw mu ni ñaari yëf ñoo ñëw te benn bokku ceeg morom ma yàlla dañu mënu leen a maandu yonent bi ni ku maandu yàlla alag la mu ni maandu gi yonent bi wax ak gi yàllay wax ñaari yooyu bokkul maandu def moom la yàllay wax jëndal kii jëndaloo kee defal kii defaloo kee ah, may kii mayoo kee yooyu nga xam ne ay def-def la yàlla nee na ah, déggal yonent bi saa sallam boobu la wax ni mënu leen caa maandu na ngeen bu ku ca ëllëg dañ lay alal maandu yàlla wax ni mënu leen ko nag mooy maandu xol xol bi moom faw am rek moomoo ko xol moom li wolof naan du oom bañ koy bës ñaareel mooy yoroo ko ba di ko jumale fa mu bëgg fa mu war a jëm xol faw rek moom fu mu jeng loolu nag su amee nit ki lu mën ci nëbb ko na ko def rawatina nag bu yore ay soxna gis nga doomu aadama cofeelam ci soxnaam lu mu bari bari bari fii ak mi ngi koy wane benn kooku mën naa bañ garaaw donte garaaw na ndax bis boo andee keneen rek fit na jub waaye loo mën ci nëbb ko na ko def ibni kathir mu ni kon ni ñoom ñëpp ñoo yem ci saa xol bi ci ak bëgg mu ni boo ko waxeet mënta nekk bu ko sax jéem mënta nekk yàlla du ko defee noonu subhanahu wa taala même doom yi nga jur ñu bokk benn baay ak benn yaay sax loolu yàlla noonu la bindee nit la ñuy bañ kay mooy nga jeng ca ba ku ku déglu dégg ku xool gis loolu la ñuy bañ mooy fala tamilu kullal mayli fa tadaruha kal muallaqa gone yi dem nañ ba seetlu ni yaay Yuusuf kat seen baay da koo bëgg lool loolu gone yi xam nañ ko xam ngeen ni gone yi du nooy def ñoom bu nekkee ci kër gi dem ak ñëwit xam nañ li xew bañ gisee loola gis nañ ni Yuusuf it baayam da koo jox ihtimam gu jéggi dayoo foofu nag mas bàyyi la leen xel ni Yuusuf bokkuloon ak ñoom parce que jirim la woon yaayam dafa teel a faatu am na droit moom baayam jox ko yitte ju ëpp ji mu jox yeneen doom parce que ñii seen ndey a ngi fi te kii ndayam newu fi loolu nag lahu kullul mubariraat moom yaquba alayhi salaam waaye sew sew yii mat a bàyyi xel la borom bi subhanahu wa def gone yi bi ñu seetloo ni ah ñoom kat ñi ngi sotle sotle seen bopp waaye ñi ngi sotle seen yaay yit nag ndax gis nañu Yuusuf dal ak gone gi mu bokkal muy rakk ja yaayam faatu seen bàyyi daal def leen a bëgg lool jox leen yitte te moo yay nag moom yaquba alayhi salaatu wasalaam te ab yonent la nag te it njuumte mu def alquran jubbanti ko gis nga fii cofeel gi mu amoon ci soxna si ak ji mu amoon ci doom yi su doon ab jàdd jàdd bu yàlla yeddee nit ki yàlla yeddaale ko ko ci biir saar bi loolu nga bàyyi ci xel baax a baax ndax ab yonent ci boppam xatax buy naangi naangi moom yàlla du ko def yonent dana juum waaye njuumteem du weesu fam taxaw ab yonent moom dana juum waaye njuumte bi yonent te lañ koy corriger loolu mooy maasum mooy koo xam moom doo juum rek soo déggee ñu ne ab yonent du juum du def erreur mooy moom erreur am fa mu taxaw fa lañ mu jàll kon su fekkoon jëf ji njuum ca yàlla dana ko rectifier borom bi subhanahu wa taala mu ni fàttalikul ba Yuusuf gars yi mokke Yuusuf ya waxee ni waaw yow sunu baay ñun de seetlu nañ ni Yuusuf ak rakkam ji moom nga gën a bëgg ci ñun mu ni ajal parce que ay gone lañ li tax ma di leen defal nii ma leen defal laaj leen seen yaay yi ba xam yéen ba ngeen tollee ni ñoom daaw ma leen defal noonu wala déet rawatina ñoom seen yaay nekkatu fi te ñun ay gone lañ ay waxambaane lañ ñun daal liñ bëgg mooy nga wóoluñu ci Yuusuf lan moo tax doo ko bàyyi muy fo ak ñun dañoo bëgg nga bàyyi kook ñun ñu dem ci àll ba foyi def nangam ak nangam seen bàyyi ni ah loolu de wóoluwuma leen ci fekk lu ko jiitu ñoo nga daje seen biir dajewukaay ni ah ñu ne nañ fexeel Yuusuf kii de buñ ko bàyyee mu màggee suñu pegg bàyyi suñ yaay yi dootuñ amati cër ci kër gi ñun duñ amati ci kër cër ci kër gi loolu waxu xale la gis-gis seen gis-gis la nan la ñuy def kenn daggee ca lànk ni nañ ko rey mu dee bu ko defee ku dee moom kenn dootu waxati waxam keneen ki ni ko tuub waay yow xanaa da ngaa fàtte ne yonent mooy sa baay te Yuusuf doomu yonent la yow doom yonent doomu yonent doon rey doomu yonent léegi ni ñuy def mooy nañ fexe ba nax suñ baay génne ko ci kër gi sànni ji ko suñ ko sànni jee yaxlu la na jaw yaxlu la na jaw lépp ci ma ni woon morom ma bu ma la faxasee sànni ca àll ba féeteeg tàgg mi suba mën na may uh, uh, way tey tey tey lappi-lappi sama ñaari laaf ndax su boobaa jaww ji féex na pour ma mën a nen amul kenn ku may tangal xoolal mbokk yi pexe mu bon mii xalaat bu yées bi naka la génn mën a génne ci fukki nit yoo xam ni seen baay yonant la moo tax gis nga sa baay daa baax loolu du wóoru nekk mukk tegtal pour nga war a mën a baax déedéet sa baay daa baax loolu bu ko kenn def prétexte pour di diw daa war a baax déedéet dëgg la nag bokk na ci war a mën a tax nit baax waaye nag bu mu jàpp ni lii mooy tax nit ki baax ndax ñii doomi yonant lañ ñaareel bi mooy xam ngeen ni ab yonant këram waaraateeg fàttali du fa jóg ñaata yoon la ñuy dégg ci seen baay ay waaraateeg fàttali waaye bi seytaane ñëwee moom fexe na ba ji la mu bëgg a jëmbat ci seen biir yi xol mooy añaan nga xam lañ def ca Yuusuf ak i bokkam xoolal jëf ju bon jii nga xam ne lu ko jiitu xamee sul jëf ju bonee noonu ay doomi yonent mat fukk jàppoo benn wala fukk ak benn jàppoo kenn ci seeni doomi baay yóbbu ci àll nara rey ba mu yàgg ñu jël tàbbal ci teen bu xóot nga xam ne boppam daanu toj xajoon na ca maanaam lan lan doon leen def nii égal lan naroon def kese parce que kaay leen ko rey ak jàppoo ko tëmbal ko ci teen boo xam ne bopp bi mën naa dal ca euh, weenu doj ca doji teen ba mu dee jàpp naa ni lee ak lii daanaka gën a oyof amu ci yàlla ko mu bëgg a musal rek daal di koy musal loolu bi mu amee ñu daal di dëppoo ci seen fexe yooya waaye boo seetloo ci biir sew-sewi alquran ñoom saabu ñuy tudd rek yusuf ak mbokkam rek yusufu axuhu ahabu ila abina ñun war nañoo fexeel yusufa ah, ndax yusuf ak rakkam ji ñoom ñaar sun baay ñoom la gën a bëgg waaye keroog bi jëf ji jotee Yuusuf lan jàpp yóbbu te yóbbu ñu rakk ci borom xam-xam yi dañuy wax ni amaan na wallahu aalam la ko waral mooy gént ka daa fee ko woon ci ñoom ajal gént ka daa firee ko woon mu arrixuun yi historiens yi dañuy wax ni su leen waxee mooy ñi nettali nettali lislaam dañuy wax ni bi nga xamante ni yaquba mi ngi nettali nettali bi yuusuf ñenn ñi dañ ni kenn ci ay soxnaam da koo dégg bi ko déggee moom it fiiraangeeg doom daal di koy jur parce que kat yow Yuusuf yaay nekk ab yonent sama gannaaw yow Yuusuf yaay nekk firikatu gént bi yow Yuusuf bu nit ñi jàqee ci yow la ñuy ñëw yow Yuusuf ëllëg di nga nekk buur la la baay Ibrahima ak Isxaaq ak Yaquba yore woon yow yaa koy yore yow Yuusuf bis a ngi ñëw sax dangay nekk buur xam nga jant beeg weer wi lu muy tekki bis dana ñëw say moroom sa ñi nga bokkal bàyyi ñëpp dañuy sujjóot ci sa kanam xam nga loolu wax dëgg yàlla dafa jéggi dayoo ah bi loolu amee soxna sa dem nettali ko ay frère am loolaa tax ñu daal di koy am na ñu ne déedéet yàlla subhanahu wa taala moo dogal xale ya xam ko bi waasitati Yuusuf Yuusuf moo leen ko nettali déedéet Yuusuf nettali ko boobu moom dëgërut ndax li tax mooy Yuusuf alayhi salaatu wasalaam ku teeloon a amuk ñor la te ku dégg ndigali baayam la loolu mooy dàqonteeg nettali gi te baayam ne woon ko laa taqsus ruyaaka ala ixwati bul nettali sa gént gi say mbokk kon su ko waxee mooy du ko def bi loolu amee nag ñu daal di jóg ñëw ci seen baay ni ko waaw baay ñun dañoo jaaxal lan moo tax yow doo ñu wóoloo booy ak Yuusuf ñuy dem ca bu ñuy sàmmi ndax ku amoonu jur la te yow xam nga ni Yuusuf ñoo bokk ak moom jenn deret suba suba moom bëgg nañoo xëy ànd ak moom suba suba gis nga harcèlement naa xadan suba suba dañoo bëgg nga ànd maanaam biñ ne baata suba suba rek automatiquement seen bàyyi fit wi ne te tëxit ndax ñii moom ñëwin wii nu ñëw dañoo wut ñaari xutta benn bi mooy nañ neexal buñ amul bis ndax xam nga ki ñëw di ñaan ba pare naan suba suba laa bëgg nga may ma kooku am na lum nar gis nga yaquba ku ñor la te nag moo yey fa huwa nabi ah ibnu nabi bi loolu amee ñu ñëw ci seen baay wax ba wax a wax a wax ba sottal wax ba àggal sàkku nañ ko ci yow ay nangam nangam seen baay ne ah man de li may tiit mooy ngeen dem sàgganee ko ba tili lekk ko gis nga baay ji bi muy wax lii moom xam na li xew ndax yàlla xamal na ko gént gi ndax xam ngeen ni bu Yuusuf dara nekk firikati gént xam ngeen ni bàyyi ci bàyyam la ko doon ne kon bàyyi xam na gént gi lu waaye am na yoo xam ne kenn du ko wax loolu nañ ci bàyyi xel même loo yilif yilif yilif gone yi am na yoo xam ne kenn du ko wax moom la wolof yi lépp naan xam wax su yebee xam baca dafa am lu ca gannaaw nit day xam bañ a wax daal di noppi ki xam moom wax di bajantu ci kawam fekk ki noppi ragalut dafa am lu tax loolu nit ñi nañ ci bàyyi xel bariwaana musiba yu am fekk wax a ko andi gis nga bu yaqub ni leen woon yéen da ngeen di jël sama doom ji def ko nangam ak nangam automatiquement rek comme guerre day déclaré boo xam léegi dootuñ na ba li ñuy def publiquement lañ koy def te su boobaa ca la yaqub di a am naqaru xol waaye man damay tiit ngeen dem tilli gi lekk ko wax ay wax waaye nag baatab tilli gi lekk mu nekk benn prétexte bu gaa yi jël ngir ëllëg buñ dee lay seen lay ñu sukkandiku ci li seen baay waxoon ñu ne ah comme nangam mi ngi suñu xelu baay de buñ fexee fexe woon nañ jëfandikoo loola seen bàyyi ne ah yéen dangeen sàggan ci moom te damay ragal bu ngeen demee ci àll ba gën a sàggan ñu ne yow bàyyi ñun ñi bokk ak moom xanaa suñ ko bàyyee ba tilli gi lekk ko ñuy fukki ponkal ak benn ñun de kon ñoo bon wax a wax ba àggal seen bàyyi nag am na ay jumtukaay yu mën a bañee parce que ab yonent la xam na gént waaye nag yaaqub yëg na ni fi ne bàyyi gone gi mu dem rek moo fi sës ndax lu ko waral mooy yëg na ni ñii fi mu nekk tey dañoo ñëw pour ñaan bu antuwul ñu foqar te gis nga bis mu ñu fuqar ñëwaan rek mooy guerre buy déclaré wu diggante Yaaqub ak i doomam te nit day moytoo tekkal guerre wala noono digganteem ak i doomam moo tax ki jàng histoire bi ne ah Yuusuf Yaaqub xamoon na ni fii la ñuy mujj lu tax ko mu bàyyi gone yi parce que dafa am yu bari yu mu doon daw waaye gëmoon na ne day metti rek waaye Yuusuf dana dellu siwaat loolu moom gëmoon na ko moo tax ba leen di jox mu ne allahul mustaanu ala ma tasifun ah, naa yàlla subhanahu wa taala te nag lii ngeen ma wax bi ngeen dellusee see ci ay kàccit di ma ni koo yaa yàlla la jëfandikoo Yuusuf génn moom it bàyyi ji bàyyi ko mu kontaan lool di pëcc cëpp cëppee a bajantu ndekete dogal yu metti yaa nga ca ginnaaw cëpp cëppee bajantu mbokk yi danga nga jàng foofu ni doomu aadama léeg lekk am na lëf mu di ko yootu wala ñu di ko ko yootul muy nuru xéewal fekk na xéewal yaa nga ca gannaaw musiba ya la góor ga doon wax na naa nga ca ginnaaw biir bu nëpp àjjana li muy neex neex nit faw nga dee ñu dugal la bàmmeel ba sa biir bi nëpp nga doog ko tàbbi àjjana gis nga mu ne àjjana ci ginnaaw biir bu nëpp faw rek nattu yi léeg-léeg day metti xéewal yi doog ñëw ca gannaawam Yuusuf ànd ak ñoom jàpp ni ñii kat ñu ko bëgg lañ ba ñu demee ba ca àll ba ca la gis loo xam ne foogut woon moom Yuusuf ne nit dana bokk ak nit ba noppi di ko def jëf ju bon ji dóor nañ ko fitnaal nañ ko niksal nañ ko xorñoñal nañ ko yëkkati ko daal di koy tàbbal ci biir teen ba subhanallah ah, te amagul fukki at xoolal koo bokkal génn géñam saj añaan ak moom mën a yegg ci nga yëkkati ko di ko tàbbal ci teen mu mën a lab ca ndox ma boppam dal ca dajoo mu faatu te loolu amoo ci benn néeg loolu moo lay wan ni gis nga mbokk yi añaan añaan moo tax arab yi dañuy wax ne alxasuudu laa yasuudu ku añaan foo ko fekk yàlla du ko def kilifa gis nga seen añaan gii moo taxit dund nañ ba faatu mosuñoo nekk ay kilifa te boo ne ñoo magoon Yuusuf waaye mosuñu nekk ay kilifa seeni tur yéen a ngi ni xamu leen leen seeni san xamu leen leen seeni njaboot xamuñu leen seeni histoire ku ko nettali rek lu bon li ngay tudd moo tax alxasuudu laa yasuudu ku añaan moom du nekk kilifa mukk yàlla du ko def te problème bi mooy gis nga añaan bokk na gravité bi ci nekk mooy nit ki day añaanee nit mel ni yàlla dalay wan luy wane nit kañ gën a avancé moo tax benn borom xam-xam ni ma aadal alxasad bada mu ne man de xam na ne jikko yëpp añaana ci gën a maandu ñu ne ko lu tax mu ne añaan moom balaa yàqal kenn aji añaan di lay jëkk a yàqal gis nga yow mii añaanee diw foo toll yaa ngi am misère ak mititu xol diw na yëfam yàqu diw bu mu nangam diw bu mu réussir ci concours bi diw bu mu nangam diw société ba ñu ko jël directeur na fa jógee diw na fa nangam yooyu añaan ngay def di ko rêvé saa boo xëyee mu ngay is muy gën di avancé yégal ni am na sawara suy tàkk ci sa xol yow kon añaan balaa lakk kenn yow mi añaan lay njëkk a ba pare yow te léeg-léeg sax yàlla day def la nga bëgg sax ndeysaan du am moo tax qul aaudu bi rabbil falaq ak qul aaudu bi rabbin naas ñaari saara ngi yoo xam yu mat di jàngal li ko waral mooy yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam gën a dëgër ci bët làmmeñ cat ak añaan moo tax bi saari wàcce dañu ah muslaay yi wàcce nañ ci man muslaay yoo xam ne yu mel ni moom de musul wàcc ci man sallallahu alayhi wa sallam noonu yàlla daal di yebal am malaaka mu fekk Yuusuf ci biir teen ba allahu akbar di xale di xale malaaka nag comme ni ma la ko waxee kenn du ko dessiné déedéet la jibril wala gayrahu malaaka kenn du ko nataal ab yonent sax kenn du ko nataal waxuma la ak malaaka naan kii mooy jibril ak kii mooy nangam déedéet loolu ay caaxaan loolu bàkkaar la ku ko def da ngaa war a tuub dellu ci yàlla jibril ñëw mu ne ko ah man dey musiba yi moo jiitu moo ma jiitu ci yow waaye damaa ñëw pour bégal la ni ah yàlla de nee na teen bii doo fi dee di nga génn te boo génnee di nga jaar ci njaam di nga jaar ci pale di nga jaar ci kaso soo paree buur ngay doon yonent ngay doon ñii la fi tàbbal bis dana ñëw ñu sarfu ci sa kanam allahu akbar loolu moo tax Yuusuf am ak defal am ak dal ci fa nga xamante ni mooy ca teen ba am ca jàmm mbokk yi dem ba ko fa léegi xoolal natt bu mel nii mbokk yi ak Yuusuf ni mu baaxee ku tedd ki li wolof yi naan ku tedd ki xam nga ñun moom dañ naan diw ku tedd ki fii ci Sénégal suñu aada diw ku tedd ki waaye kan moo ñu wax ku tedd la xam nga loolu tamit daanaka am problème la ñun ñoo jékki-jékki rek natt suñu nattukaay ñun kan moo wax suñu nattukaay baax na da ngay dégg diw ku tedd ki doomu ku tedd ki yow da ngaa ñàkk fay yow doo nangoo nekk ku tedd ki euh, bi doomu sang bi yow yow doomu sang yow diw doomi soxna yi ku nekkul doomi soxna doomi fàqmaan ngay doon ku soxna jurul fàqmaan lay jur da ngay dégg ah, ah, doo doomi soxna kon doomi nga kon yow parce ku soxna jurul rek fàqmaan jurul ndax ñaari jigéen ñooy am ci kaw suuf yooyu baat nañ ciy seetlu settantal bu baax ku bëgg baax ku nekk boo juddoo nangu la nekk doomi soxna doo soxna mooy jigéen ju baax kese terme yooyu ñu jëfandikoo di ci nax nit ñi nañ ci bàyyi xel li la mooy ku tedd ki déedéet yàlla moo koy natt akub yonente waaye du nit ñi yonente bi bañ ko laajee ku tedd ki dani alkarimu ibnul karimi ibnul karimi yusuf ku tedd ki doomu ku tedd ki sa tab ku tedd ki sa sa tërñib ku tedd ki kon ñu bàyyi xel ni natt yu mel nii dal ci kaw ku teddee nii moo lay wan ni kenn ku ne ci ñun war naa waajal boppam nattu yonent yàlla bi nee na inna allaha ida ahaba ahla baytin ibtalaahum yàlla su bëggee benn famille def leen di nattu ku nangu mu muñ yàlla mu ni yàlla gërëm fay ku nanguwul muñ yàlla def la muy def te du la fay tus yonent yàlla bi ki gën a métti nattu ci kaw su mooy ab yonent ku gëm yàlla bu baax topp ca ku gëm yàlla bu xaw a baax topp ca ku gëm yàlla bu feebal topp nit ki bu la yàllay nattu sa gëm yàlla ni mu toll noonu la la yàllay nattoo da ngay gis ko yàlla tegum natt di ko gëm yàlla nga di andaysaan ah, man de diw ni ma ko yërëmee fekk moom moo waroon wax andaysaan ah, diw ni ma la yërëmee ndax moom natt yi mi ngi koy sellal mi ngi koy yëkkati mi ngi koy setal mi ngi wisara wa rësal ay bàkkaaram te ñun nag xamuñu léegi-léegi yàlla nag subhanahu taala nattu yi may def fekk na am na yu neex yu nekk ci gannaawam kon borom bi subhanahu wa dogal ni gaa yi dem ca teen ba sànni seen mbokk ma ca biir teen ba fas yéene na ñëw ci seen bàyyi lay ay lay waaye yàlla musal na Yuusuf deewul ca teen ba gaañuwul ca teen ba te loo xam ngeen ni kéemtaan la ab teen ak teen ba na mu xóotee woon ci ni ko borom xam-xam ko mel ni Ibn Kathir mi ngi nettali ci bi daay woon ne teen bu xóot la woon ñu tàbbal ko ci mën a dem ba ca biir labul ca ndox ma daanuwul ca doj yee deewut ba pare ñu bàyyi ko fa dem guddi am te weetut xam ngeen ni ku ñeme dan laa déey am lu mu la wax moo tax Yuusuf ñeme fa ba la koo fekk fekk ko fa ñu génne ko kon yii ay njàngat la yoo xam ne yu mat a bàyyi xel la rawatina koo xam ne kilifa borom kër nga rawatina ko gëm yàlla ci séentu ay natt yu war a ñëw rawatina aji gëm yàlla ji mu xam ni añaan amul benn njariñ ndax lii ñu def tey jël nañ Yuusuf yóbbu ko sànni ko teen ba jàpp ni yëf yi jeex na waaye buñ ñibbisee ca la musiba yi gën a tàmbali di këpp ci seen loolu mooy dëppoog ma aadal xasad bada abi saahibi fa qatala nu ngi ñaan borom bi subhanahu wa taala yal na yàlla musal nu yal na yàlla musal nu ci melokaan yu bon yi yëpp rawatina melokaan wii di añaan yal na yàlla sàmm ñu sàmmal suñu njaboot yàq yi nga xam ne seytaane da koy def ci biir ay famille ak ay soxna ak ay doom yal na yàlla musal nu ci suñuy njaboot yal na yàlla sàmm ñu fii ci àddina ci àllaaxira allahuma surna fawqa al ardi wa taxta al ardi wa yowma al ardi aleyk allahuma hadina li axsani al axlaaqi la yahdi li axsana illa ant wasrif anna sayi'aha la yasrif anna sayi'a illa ant اللهم انا نعوذ بك من الهم والغم والعجز والكسل ونعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد